docteur Seynabou mbaw maa ngi lay nuyu. waaw ngi lay yow euh, médecin nga ci ministère de la santé yaa ngi euh, nekk précisément division de la lutte contre euh, les maladies non transmissibles alors Sénégal am na ñaari weer ak lu teg mi ngi dund ak coronavirus tey noo jàngatee tolluwaayu jàngoro jooju ci réew mi. waaw jërëjëf donc tolluwaay jàngoro ji ci réew mi ni ñu ko jàngatee mooy depuis ñaari weer bi ñuy soog a tàmbali gisoon nañ ne cas yi bëriwul woon mais euh, ci semaine yi mujj quand li ñu seetlu mooy cas yaa ngi commencé di yokku bu donc fi ñu toll nii toll nañ ci foo xamante ne mooy cas yaa ngi jëm ci kaw euh, feebar baa ngi dem mu ngi mi ngi mi ngi euh, propagé wu mu ngi dem bu baax donc vraiment boobu situation lañ toll actuellement et ñu ngi ñaan vraiment di di espérer que ni. ou bientôt quand même dinañ egg foo xamante ne taay dinañ mën a wàññeeku ci kaw vraiment ñu respecté euh, mesures yiñ fi jotaw ñu fi wax boobu ba tey mm. ñu mën a espérer miskaayu wàññi mm-hmm. alors euh, ñu bëri jàppoon nañu ne jàngoro ji du fi yàgg dafay romb rek dem tey bu ñu xoolee mbir yi yaakaar nga ni kon génn gunu ci waaw loolu yaakaar naa sama naataango yi nga xam ne ñooy épidémiologie ñoo ci gën a mën a wax mais liñ ci gis fiñ toll nii mooy génnaguñ ci xamaguñu kañ lay jeex mais bon lépp nag ci kaw rek di ñaaxaat askan wi ah ñu respecté li ñuy wax ndax comme li ma ko waxee jàngoro ji dafay jàngoro joo xamante ne du moom mooy doxal boppam nit yi ñoo koy euh, yóbbu ñoo koy tasaare ñoo koy donc su nit yi respecté liñ leen wax toog beeg geste barrière yooyu yaakaar naa mun nañoo dagg progression wu euh, jàngoro bi nu muy euh, wàlliyaane bi dem alors gis nañu euh, cas yi mu ngi gën di yokk rawatina ak yi ñu naan communautaire yooyu am na ay digle yoo xam ne joxe woon nañ ko ngir mucc ci tey ndax yaakaar nga ni plan boobu ñu tëral baax na par rapport ak situation bi ñuy dund plan bi ñu tëral kañ baax na baax na parce que biir plan bi wax nañu nooy def pour mucc ci pour bañ cee am wax ji rek mooy respecté bee des mooy conseils yi ñuy jox population bi ñu ko respecter topp ko ni ñu ko waxee euh, parce que bu ñu toppee li ñu wax mooy geste barrière yi mooy mbirum lu jëm ci cet gi ah mbirum takk masque yi ah, beneen bi mooy moytu dajaloo yi ci ay bërëb hmm? beneen bi mooy moytu euh, di di di ne en contact ak yeneen i nit comme ni ko waxee mais ak so ak euh, mbirum solum masque yi yooyu bu ko respecté dina baax beneen bi mooy surtout nag mu toog toog wàññi dem beeg dikk bi toog loolu moom bu buñ ko respecté def ko nuñ ko waree defe naa yi ñuy wax ne dina mën a wàññeeku baax alors geste barrière yooyu ngay wax am na ñu bëri euh, dañuy jàpp ne xëy na euh, kese kese du tax nga mucc ci ndax euh, parfois ñu dégg kenn ni jàngoro ji daal loo mën a def mënoo ci mucc parce que mun nga ko amee fu ne ak nu ne est-ce que geste barrière yi bu ñu ko toppee dëgg mën nañoo muccal ci coronavirus. mën nañ cee mucc kañ bu ñu ko toppee ñu ko waxee. mi njëkk mooy booy génn mu fekk ne danga am soxla farata boo xamante ne bu ko jar mooy pas génn di dox ndox boo génnee dox mun ngaa tase koo xamante ne moom mi ngi jabu jàngoro ji mu wàll la boo see sa kër respecté li ñu la wax geste barrière yi mooy raxasu raxasoog ndox ak saabu ba set say loxo wala boo amul loolu jël solution hydroalcoolique jaarale ko si say loxo beneen bi mooy booy sëqat wala dara ngay ngay ngay tichooli jël mouchoir parce que génn jël mouchoir bi boo paree sànni boo paree raxas say loxo ba ca des mooy ngay sol mas ak respecter tamit distanciation sociale maanaam respecter diggante ñaari nit hmm. benn mètre bi au minimum benn mètre bi dox seen diggante ngeen bari di dañ di dajaloo bañ a di regrouper wu bañ di toog di waxtaan yooyu ku ko respecter normalement normalement waratuñu gis ay cas di si si euh, wax ji nag mooy fi ñu toll nii Euh, euh, respect bi que nit yi conscient xam ne jàngoro jàng fi et que pour mu dem ñun ñii ñoo ko wara a mën a fexe ba mu dem ñun ñii askan wi mooy ñu respecté mesure yi kon cas yi ni muy yokkoo nii li mu tekki mooy respecté wuñu mesure des na quand même. Hmm. ñu ngi ciy jéem ndax gis nañ ne ci masque bi moom fi ñu toll foo génne yaa ngi gis nit yaa ngi takk masque loolu lu baax la mais bu ñu fàtte ne du masque kese bu ñu fàtte yeneen geste mooy raxasu loxo yi dajaloo yi toog bi waxtaan beeg yooyu yëpp dañ ko war a dakkal toog suñu kër. waaw toog suñuy kër boo amee soxla farata génn dem doxi ko ñibbisi voilà alors ñu ñëw ci euh, ki nga xam ni euh, dafa génn àdduna ay bés bi ñu génn amoon fanweeri at ak juróom-ñaar daanaka moo gën a nekk ndaw euh, ci ñi coronavirus faat waaye kooku dafa amee woon yeneen jàngoro ndax tey mun nga ñu ñëwal ci jàngoro yi nga xam ni boo ko amee corona lor la mooy gën a yomb ko ki nga xam ni ameewu ko. waaw am na jàngoro yoo xam te ne bu ko nit amee. su ñëwee fekk corona ñëw fekk si ko vraiment day aggraver tableau ni te yooyu jàngoro mooy euh, lii di diabète mais maanaam mooy jàngoro yi ñuy ooyee affection cardiovasculaire maanaam ñu jëm ci problème mu xol ak problème mu tension yeneen jàngoro yi mooy cancer yeneen mooy jëm yu xamante ne li ñuy ooyee affection respiratoire chronique yi ci demee ni que asthme hmm. am na itam yeneen jàngoro bi ñuy ooyee maladie rénale chronique nga xam ne ñu ci bëri ñu ko jàppee ci ci ci insuffisance rénale muy problème mu roño yi. Hmm. ak i tamit ñoom it drépanocytose yooyu daal mooy jàngoro yi nga xamante ne bu ko nit ki amee nga xamante ne mooy mu ngi dund ak moom lu yàgg diiru lu yàgg ah bu ci Covid bi ñëwee topp donc vraiment dafay dafay détériorer tableau bi te mun na ko indilee vraiment yeneen gàllankoor yoo xamante ne kenn. Mhm. ndax loolu mun nga ñu expliquer euh, naka lay doxe yaakaar naa moom la ñuy wax comorbidité. waaw comorbidité dafay loo xamante ne li may mooy nit ki am na benn feebar bu ne ci yaramam bu mu nekk ak moom lu yàgg ah mais ci kaw feebar boobu mu am leneen lu beneen feebar bu ko ñëw dal si ah, par exemple ku diabétique wala ku amee tension koo xamante ne mu nekk moom covid bii nii par exemple ñëw dal ko loolu comorbidité maanaam am na ñaari jàngoro yu ko fi yu ne donc benn bi fi nekkoon na beneen bu ko fi feek Mm. alors léegi naka la euh, feebar yooyu mënee tax coronavirus faat-faat euh, gu gaaw par exemple lu mel ni diabète ban rapport la am ba nga xam ni corona bu ñëwee mën na lor nit ki ko amee. waaw xam nga nit ki am diabète jël traitement bu dee équilibré ah, day fekk système immunitaire maanaam ah, soldaaram yi nekk yaramam bi. dëgëratuñu wala bëreetuñu xam ku say soldaar bëriwul sa yaram donc pour nga mën a xeex benn jàngoro day metti donc mu mel ni jàngoro covid bi bu ñëwee fekk si ko fa day yaram boo xamante ne amatul soldaar donc fa muy dem di yàq dafay bëri hmm. loolooy waral tax de vraiment li muy faat di bëri ci parmi donc population noonu itam lay demee ci tension par exemple. waaw ñoom ñëpp ñoom bokk yam parce que dafay jàngoro yoo xamante ne souvent nit ki day dëkk ak moom te mooy boo moytul dina am ay complications yoo xamante ne jàngoro boobu lii di tension wala jabet da koy amee. Mm-hmm. le plus ci feebar Covid bi ñëwee rajouté wu moom itamit. Mm-hmm. Euh, vraiment day day détérioré day day tax ba nit ki dina am yeneen i problème yu yoo xamante ne day day day dem jàpp yeneen i appareil yu gën a indi ay ay alors est-ce que ci biir jàngoro yooyu am na yoo xam ni mooy gën a garaaw ya ca des maanaam yëpp ay maladie non transmissible maladie chronique la mais ndax am na ci ñoo xam ne euh, mën nañu leen ci seppi ni ñii bu corona ñëwee ñoom lay gën a gaaw a ñeneen. daanaka ñi ma maladie non transmissible yi ma wax yëpp ñoom ñëpp yam parce que yooyu yëpp ay maladie chronique la yoo xamante ne nit ñi nekk moom jur yàgg. parce comme ni ma ko waxee sànq bu équilibré wul nit ki yaramam soldaaram ak yeeg yi mu war a xeex bëriwul ña fa nekk bëriwul donc ñoom ñëpp ñoo bokk yam li gën a wóor daal mooy ñi amee jàngoro yooyu mooy ñu moytu vraiment moytu bu baax. ñoom tey bu weesoo geste yi lan leneen la ñu war a def gannaaw ñoom ñoo gën a exposé ña ca des. waaw bu weesoo geste barrière yi li ñu war a def mooy seeni traitement xam ko am wax maladie chronique maanaam ku wax jàngoro joo xam ne yaa ngi dund ak moom giiru dund. am nga ay garab yi ngay jox mooy nga respecté sa garab yeeg sa traitement yi ak sa sa hygiène de vie bi nga xamante ne souvent nañ leen wax ñu respecté ko hmm. donc yooyu foog nga topp ko nañ la ko waxee seeni rendez-vous itam kër docteur nañ koy topp tamit bu jotee souvent dinañ am ñenn ñi dinañ am seeni numéro téléphone seeni médecin balaa rendez-vous bee ñëw nañ ko woo ñoom ñaar bu ko defee dinañ coordonné mën a waxtaan xool bu baax naka la rendez-vous koy defee ban heure ngay ñëw pour ñu mën a néewal euh, temps bi ngay ci salle de tente bi ndax plus nga yàgg ci salle de tente nga ne en contact ak yeneen malade donc vraiment loolu lañ leen di ñaax ñu continuer seen traitement respecter seen i suivi te respecter tamit seen i seen hygiène de vie ñuy yëngu parce que tamit dañ dañ leen naan bu leen génn bu leen génn mais biir kër gi ñu fàtte ne tamit mun nañu xool nu ñu mënee yëngale seen yaram bañ a toog noonu rek mais yàcc bañ a def dara. d'accord ñu ñëw ci maladie transmissible yi nga xam ni euh, ñoom euh, la ñu daanaka gën a ràññee ci réew mi donte am na yeneen diabète ak cancer euh, fi mu ne daanaka foo dem fekk ko fa tolluwaay wi ci réew mi fan lañu ko mën a natt. waaw tolluwaay mi ci réew mi am na enquête bu fi defoon ci deux mille quinze bu ñu ubbee enquête bu defee dañoo gis ne lii di diabète Euh, bu ñu jëlee euh, population bi nga xamante ni ñi am fukki at ak juróom-ñett euh, juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent gis nañ ne prévalence bo ma nga ca trois virgule quatre pour cent pour diabète bi lii di tension bi hypertension artérielle boo jëlee ci biir ñooñu at yooyu ñu jël tamit benn nit boo ñett nit yoo jël kenn ka amee hypertension artérielle pour wax ne vraiment dafay jàngoro yoo xamante ne ñu ngi ci biir askan bi ñu ngi fi di dem et que ñu ko am bëri nañ loolu chiffres ñuy joxe plus at yi di yokku chiffres yooyu dafay gën di mm. vraiment dafay jàngoro yoo xamante ne ñu ngi fii ñu ngi commencé di indi ay ñu ngi pas commencé ñu jafe-jafe ci mm. population bi alors est-ce que bu ñu xoolee xëy na enquête bi donte dafa tëggu leen beneen yaakaar nga ni yow danoo mm. dellu ginnaaw ñoom jàngoro yooyu wala ñu ngi jëm kanam dellu ginnaaw jëm kanam fi ñu toll nii comme amaatuñu beneen enquête pour natt ko xool tolluwaay bi mais li ñu seetlu mooy quand même euh, ak action yi ñu jot a def normalement chiffre dana yokk ndax nit yi ñu ngi leen di ñaax ñu dem di seeti seen yaram donc plus gën di dem seeti seen yaram ngi dem di dépister wu ñu xool donc ñu ngi leen di wax ndax yow am nga tension wala hypertension donc ce qui veut dire que ak action yi ñu jot a normalement chiffre dafa war a mm. parce que nit yi ni euh, ñu ci bëri dinañ xam. Eh, ne yow kat nekk nga a risque pour am diabète wala nekk nga à risque pour am hypertension ak jigéen tam ñu ngi leen a ñaax ñu dem di seet seen yaram pour mm. xool lu jëm ci mbirum cancer du sang ak mbirum cancer du col yooyu dina tax ba vraiment nit yi di gën a dem ci structure sanitaire ñu leen di dem donc chiffre yi noonu day dafa nar a yokk bu ñu dee bu ñu defaatee une enquête normalement Mmh. if di war na war naa yokk d'accord concernant maladie yooyu nag dañuy dégg euh, lu ñeel jàngoro yooyu ñi nga xam ne ñoo ko amee di euh, ñaxtu yenn saay wala di jàmbat ci prise en charge bi ndax jàngoro yi mmh. ñuy dundaale la ci seen ngirug dund waaye euh, traitement mmh. bi aussi dafa cher muy prise en charge bi fi mu ne état nakal la leen ci taxawoo lu mel ni diabète cancer ak xëy na yeneen maladie yi chronique yi. waaw nag comme ni nga dafay jàngoro yoo xamante ni ko am da nga war a dund moom sa giiru dund am nga ay garab yoo war a jël tamit à vie ci kaw loolu état am na am na ay euh, efforts yu mu ci def par exemple lii di diabète am na pour insuline bi am na subvention bu ñu fi def maanaam euh, wàññi nañu njëg mi te bu yàggul dara tam lu jëm ci ci cancer mais yenn garab yi nga xamante ne moom la ñu jëfandikoo. boobu yi tamit am na subvention buñ ci teg buñ ci teg donc effort yi ndaam des na te ñu ngi ci tànk yi vraiment pour yokk ko pour yomba yombal leen vraiment paj mi ah pour que ñu mën na vraiment mën a dund ak seen jàngoro te mun a itam di faju correctement comme niñ ko alors mooy doon euh, laaj bu mujj bi xëy na euh, docteur lu soxal euh, coronavirus bi ak jàngoro yooyu est-ce que am na campagne communication boo xam ni def ngeen ko ci ngir ñaax ñooñu nga xam ni xëy na corona bu ñëwee ci ñoom mën na leen a bañ a jikk waaw campagne bu ñuy jot def mooy déjà wax ak ñi ñi nga xamante ne ñu ngi ci région yi région médicale yi ak ñi nga xam ñu ci association ndax am na ñu ci bëri am na ay association de malade ba jàngoro bi dooree am na ay recommandation maanaam am na ay tegtal ñoo xamante ne li ñu defoon ñoo xamante ne partagé nañ ko ak ñoom wax leen nu ñuy moytoo ni ko vraiment euh, lii di jàngoro bi di Covid donc campagne yooyu des na fi ñu toll nii euh, war nañ ko gën a insister waat vraie population pour ñu gën a mën a xam mais tamit am na ndaxte docteurs yi ñoom itam ñi nga xam ne ñu ngi ñoo yor faj mi itam ndax yéen gis bés bu ne ñoom it wax hmm. ah. lu jëm ci jàngoro yooyu ak Covid bi nu mu nit ki nga xamante ne mi ngi am jàngoro yooyu nu mu war a def war a moytandikoo pour ba fexe ba mucc ci lii di Covid bi donc je que ñu ngi ci te dañu yaakaar naa dañoo war a gën ko biral gën ko euh, incité ci bu baax a baax pour ñu ci mënta xam bu baax baax te mooy ko mhm. docteur bu dee amoo xëy na message ba yónnee euh, ñi amee jàngoro yi nga xam ne yéen moom ngeen di toppatoo ñu gërëm la rek wax la ne mbégte mu rëy lañu amoon dalal la ci matinalu réew mi tey waaw peut-être message bi mooy ma dellu si waat si li ma waxoon tànk rek mooy pour ñi nga xamante ne ñu ngi dund ak doomu ja ñu ngi dund ak jàngoro yooyu noonu mooy nañuy moytu ñu respecté geste barrière yi ñu fi wax ñu takk seeni masque di moytundi ko dajaloo yi bu dee dañoo génn muy doon génn farata hmm? bu génn munta euh, ñàkk euh, kii nag euh, bu munta ñàkk mooy doon farata vraiment mais sinon li gën mooy mu toog ñu toog seeni kër toog seeni kër mooy éviter vraiment contact beeg yeneen nit yi ndax xamuñu fi ñu toll nii kan mooy kan ku am ak ku amul jàngoro bi li gën daal mooy nga wàññi say déplacement respecter say traitement respecter itam say rendez-vous mooy ngay jokkoog say médecin pour vraiment fexe ba équilibré te ñu bañ a fàtte yi ku am jàngoro yooyu souvent dafa am de vie boo war am. Mm. continuer ci biir kër gi nee nañ leen bu leen génn waa biir kër gi noo mu ne yëngalee sa yaram di def activité physique di yëngatu lu fexe Euh, mën a respecté donc lu ñu la waxoon yëpp au début boo nga amee feebar bi kese sans Covid amoon donc loolu yëpp foog ñu continuer mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf docteur Seynabou Mbow ma fàttali ni yow médecin nga ca ministère de la santé euh, nga nekk ci division de la lutte contre les maladies non transmissibles ñu ngi lay jërëjëf maa maa